daañu ko may Sonko Sonko de daañu koy may de Sonko lay may dégg Sonko bi may dégg li mu tax a bàyyi ko de waaye yaa ngi xut de.